ça dit quoi waa waa ji ngeen gis moo di Waly Diouf Bodian dañ ko jàpp le 6 mars dernier ba pare place ko en garde à vue foofu ci commissariat central bu Dakar waaw ba pare noppi bàyyi ko le 24 mars dernier takkal ko lii di ay bracelet électronique ñu ne ko da am liberté provisoire du coup on va voir lan mooy bracelet électronique mais avant cela moom la la dafa ñu jàpp ko tout ça tout juste après notre moom ñu ngi ko jàpp à la suite manifestation yi amoon opposant Ousmane Sonko ak kii di Mame yi ñaax ci dossier Prodac vingt neuf milliards xam wax naa ko sax vingt neuf milliards je dis bien vingt neuf milliards yoo xamante ni képp ku ci wax ñu dóor la plainte pour diffamation Ousmane Sonko jël na wàllam Waly ba Bodian moom lañ dóor lii di bracelet électronique mais avant moom am na ku jëkk a jot lii di bracelet électronique mais juste pour petit rappel kan ak naan ak ñan ak seen anoon war a takkale lii di bracelet électronique la question qu'on la surpopulation carcérale maanaam prisonniers yi nekk ci kaso yi Sénégal ñëpp euh, justice Sénégal dañu am problème bu metti problème bu majeur boo xamante ni pour rek trouver alternative pour wàññi loolu di population carcérale du coup loolu tax mu trouver benn alternative moo di bracelet électronique juste pour wàññi ñu nekk ci prison yi du coup est-ce que xam ngeen Sénégal 37 prison la am ci 37 prisons yoo xamante ni depuis l'administration française coloniale lañ ko fi bàyyi yenn yenn yi ci prison yi 33 ci prison yooyu yëpp dafa nekk ci état boo xamante ni mën naa ne mara daytaan yi dafa fees dell prison yoo xamante ni selon le rapport de l'Amnesty International maanaam eh, prison boo xam ne dafa waroon jël 4200 et quelque prisonniers mu dem ba jël lii di cent plus de onze cent prisonniers donc loo xamante ne ci vingt ans dafa jéggi dayoo dafa doublé ci vingt ans lii di prison yi nekk Sénégal yëpp elle a été adoptée en juillet 2020 par ay député yu voté lii di ay bracelet électronique pour désengorger maanaam lii di prison yi nekk Sénégal yëpp mais boo xoolee à l'époque mille bracelet électronique lañ amoon ci biir mille bracelet électronique lañ doon yeneen bi mille bracelet mu nekk deux mille bracelet ay prisonniers te ñu ngi ko jëkk appliqué mooy ñaari personnes yoo xamante ni fële ci tribunal bu Pikine Guédiawaye ku leen ko jëkk takkal moo di juge Barry waaye juge Barry moo nekk chef du premier cabinet foofu ci tribunal bu Pikine Guédiawaye ñu ngi ko takkal ñoom dañ leen topp woon ci euh, association malfaiteur maanaam dañ doon def lii di jublang ci ci wàllum euh, usage de faux euh, wàllum tamit euh, falsification dossier administratif ci côté transit ba ju luubal xaalisu jàmbur boo xamante ni dafa takku moo tax ñu takkal leen bracelet électronique ñu bàyyi la ñu dox seen ay soxla nee la léegi mën ngeen dox seen ay soxla waaye vous serez sous surveillance électronique je répète bien en vingt ans population carcérale du Sénégal yu nekk ci prisonniers dafa doublé boo xoolee depuis mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf jusqu'à deux mille vingt prison bu waroon jël quatre mille deux cent et quelques dafa dem ba jël léegi onze mille cinq cent de prisonniers ci loo xam ne dafa doublé presque boo xoolee leen Ismaïla Madior Fall le ministre des justice ministre des justice moom dafa ñëw ne c'est une alternative contre les détentions provisoires maanaam moom mi waxoon nee woon troisième mandat lii la moom mi waxaat lii di bracelet électronique c'est une alternative pour lii di ay détention provisoire parce que boo xoolee ci Sénégal détention provisoire dafay dem ba ay un an deux ans trois ans ba kenn du la jugé ñoo xamante ne danañ yàgg ci kaso bi lool bañ leen fàtte ba ñu dépassé même peine bu ñu waroon tëdd donc te bu ñu tëddee pen boo xamante ni waruñu ko woon tëdd justice da leen jox ndàmpaay da leen di libérer bàyyi leen noonu et ce qui est une peine perdue maanaam tardé tardement bu rëy lay nekk ci nit kooku ba tax na kooku bu génnaatee nekkaat ci askan wi es ce que dina am temps defar defaraat defaruwaat pour mën a bokkaat ci société en général dañuy gis bu ñu génnee tag ci kaso dañuy dem defaat yeneen yeneen jéye yoo xamante ne da leen ci biir kaso parce que dañuy perdre perdre repère carrément léegi dañuy xool ñan lañu war a takkal lii yan type de personnes la ñu war a takkal bracelet électronique ñu ngi ko war a takkal les personnes yoo xamante ni ñoom ils font les personnes qui font l'objet d'une infraction information judiciaire maanaam ñoo xamante ni tey jii euh, yoon léegi juge instruction dafa ubbi ab enquête ci seen dossier ñoo xam dañu war a tëdd par exemple une peine d'allant un an jusqu'à trois ans du ko dépassé ñoom la ñu war a takkal lii di ay bracelet électronique moo xam moo xam ñoo xamante ni c'est ay délit wala seen ay euh, infraction dafa nekk loo xamante ni taxu kaa taxu kaa rëy trop segam nag euh, infraction du lu mu tuuti tuuti euh, infraction lay doon ndax ab tooñ la ak kan tamit ak koo xamante ni dafa war a comparaître ci tribunal de juridiction par exemple ci tribunal pénal wala tribunal correctionnel koo xamante ni tey jii dañ ko a tëj ci ab diir boo xam ne day toll ci un an à trois ans loolu xamle naa ko léegi mais également koo xamante ni par exemple tamit dañ ko jàpp ci prison pénitentiaire prison pénitentiaire yoo xamante ni euh, moom dinañ ko permettre par exemple boo waroon bu tëddoon ab diir ah mu dese woon ko six mois bañ a romb un an kooku mën nañ ko jox lii di bracelet électronique mais également à des personnes qui sont des personnes âgées maanaam ñoo xamante ni ay mag lañ tey jii mënuñu tëdd tëddaay kaso bu yàgg mais également tamit seen état de santé ñoo xamante ni dañu feebar lii di. bracelet électronique mën nañ leen ko takkal mais également Sénégal trois personnes yooyu trois catégories yooyu laa wax mooy ñoo xamante ni tey jii euh, ils suivent une information judiciaire maanaam tey jii ils sont par exemple maanaam ñetti personnes yooyu mooy des personnes qui font l'objet d'une information judiciaire maanaam ñu ubbi ab l'enquête ci seen dossier maanaam ñu war leen tëj ci ab giir boo xam ne day toll ci un an à trois an ak ñoo xamante ni ils font l'objet d'une comparaison euh, d'une comparaison ci tribunal de juridiction yi maanaam tribunal pénal wala tribunal de correction maanaam tey ñoom ñoo xamante ni dañ lay war a tëj ci durée en boo xamante ni un an ba trois la te peine bu ñu def wala crime bu ñu def pas mais infraction bu ñu def euh, dafa nekk infraction boo xamante ni c'est puni par la loi sénégalaise d'une peine allant de un an à trois ans ak ñoo ñan ak ñoo xamante ni tamit dañ leen jàpp ci prison pénitentiaire yi yoo xamante ni dañ tëddoon ci benn peine mu dese leen peine boo xamante ne leen six mois par exemple wala un an ci seen peine ñooñu mën na leen takkal lii di bracelet électronique mais également aussi ak ñoo xamante ni exception la dañ feebar ñoo xam nañ feebar feebar boo xamante ni mën nañ bañ mën nañ bañ a kaso bu ñu tëddee kaso seen tëddaay kaso mën na leen lor ak ñoo xamante ni dañu âgé tellement que euh, seen yaram mënu leen may ñu tëdd kaso ñoom ñooy bénéficié wu lii di bracelet électronique bracelet électronique yi am na solo loolu ndax prison dina tax prison yu nekk ci Sénégal yëpp dinañ mën désengorger par exemple ñu fa nekk mais également xool kan ak ñan lañ ko war a takkal mooy li mu jot wax léegi léegi léegi léegi ce qui reste à voir c'est ce qui reste voir c'est est-ce que puis est-ce que bracelet électronique solution la pour désengorger lii di prison yu nekk Sénégal c'est ça la vraie question dama leen bàyyi ngeen tontu ci question boobu ci comment